une viol pour confirmer une viol c'est trois choses. muy lan un viol un viol. un viol un viol c'est extrêmement important. non c'est trois choses xaw ma quatre. muy mooy est-ce que mu nga woon ci lieu oui Ousmane Sonko était dans les lieux est-ce que xamante na ak ndaw si oui xamante na ak ndaw si. Mm-hmm. est-ce que y a eu rapport sexuel wóoruma attention wóoruma. mais est-ce que am na lu ñu fekk ca moom oui am na lu ñu fekk ca moom. ca kan ca Soxna Adji Sarr. perte blanche te Abdou c'est pas du perte blanche Abdourahmane Alfousseyni Gaye moo toog ci biir tribunal. wax ñëpp dégg loolu na polémique. andi na te du dégg. toog ci biir tribunal ñëpp di dégg mu ne fekk na fa sperme te il a préféré parler à bas voix basse il a préféré parler français lam ci jublu moom moo ko xam du dëgg maintenant. su loolu nekkee prélèvement yooyu ñu fekk ci moom te mu nekk man niw buy dund ku ko moom parce que question yooyu jib na laaj nañ ko ko moom ndey xadi tontu ci ñu ne ko xanaa koon sa jëkkër ko moom parce que bés boobu ñaari nit yooyu ñoo nekkoon ñaari góor yooyu ñoo nekkoon Ousmane ko moo fa jaar ak sa jëkkër moo nekkoon ci kër ga donc su nekkee man niw bi ki ko moom suñ ko confirmer ne diw moo ko moom est-ce que diw boobu ba muy set ak moom euh, euh, c'était c'était damay damay wax li liy andi viol laa wax de liy andi viol fi ma toog li may wax dafa leer. mais am na yu la ci leerul donc mënoo avancer foofu. waaw moo tax ma ne la gis nga. am na ci ay points yoo xamante ni am ne ci dara tey tey tey ñaari point moo ma manqué ñaari point moo ma ma manqué boobu. te bañ ko santee ki ñu ki ñu bañ ko nee demal defi test ADN dafa ne du ko def n'est-ce ñaari am na. xamante naa ndaw sax ma nga fa woon da doon fréquenté lieu boobu n'est-ce donc ñaar yi mooy xam mooy la ca ne su defoon test ADN dinañ xam ndax moom la moo ko moom wala moomu ko. d'accord léegi. maintenant ma la nag coowu senegal hmm. foofu la doore. ca dàmp ba. ca ca dàmp ba fa la doore moo waraloon ñu appeler à l'insurrection woo nit ñi nit ñi dajaloo ci biir kër ga. d'accord léegi n'est-ce pas. léegi mooy dem nag mooy dem di progressé di progresser di progresser di progresser ba li am nii am c'est-à-dire kuy waxal yàlla da nga xam ni foofu la doore.